waaw muy noonu ñu jël Mouhamed Diallo boo defee rek. voilà Diallo ñu euh, bàyyi la nga nuyoog mbokk yi teenoon yi nga xam ne lay seetaan rek après nga ñëwal ñu décrire ñu un peu li nga xam ne moom moo xew ci euh, biir salle. waaw jërëjëf maa leen di euh, nuyu yéen ñëpp. en fait li ñu mën a retenir tey gis li nga xam ne ni moom moo soon ci salle d'audience bi moom mooy euh, dañ koo xaaj ku nekk ñu jox la ñeenti waxtu si parti nga xam ne tey ñi ñoo nekk au tribunal euh, avocat Ousmane Sonko yi ñoom ñoo doon wax sànq euh, quatre heures de temps la leen mayoon si quatre heures de temps yi avocat yi trois tours ku si nekk jëneen ay lay mais ponk yu ñu gën a waxtaanee bokk na si app bi ñu mayoon Ousmane Sonko mën a clamer radiation bi ndax app bi weesu naam déet ak notification ak signification bi si selon ndax jot na si ndax def nañ ko nañ ko waroon defee mbirum contumace aussi ñëwoon nañ si bu baax a baax avocat Ousmane Sonko yi donc en gros loolu daal moom moo nekkoon point yi nga xam ne nii gën nañ ko waxtaanee euh, si biir euh, salle d'audience bi nga xam ne nii euh, fa leen génnee léegi mu am benn pause boo xam ne nii observé nañ fa pour 30 minutes. waaw. waaw maître Babacar Niang la euh, en fait loolu ay incident la yoo xam ne dalay faral di am effectivement bi mu waxee loolu gis nañ la réaction de l' judiciaire de l' moom dafa jën interrompre ko mais tamit après le juge de leen remettre ñoom ñëpp à l'ordre wax ne agent judiciaire de l' état amul sañ-sañ mu toog kenn koo xam ne nii dafay euh, am plaidoirie maanaam dafay layal ki am ne moom mooy client am waaye tam mu recadré waat ki nga xam ne nii aussi moom mooy avocat Ousmane Sonko wax audience bi nekku moom moo koy gérer bu ñu ko dogee tamit nekku moom moo war a ñaaw loolu waaye daf bàyyi ko loxo le président du tribunal donc incident bu ndaw la mais ñu gérer ko rapidement euh, jàll si leneen à part loolu amoon na maître El Hadji Diouf def son show comme ni koy faral di defee yenn saay euh, bu avocat Ousmane Sonko kenn du wax ku su mel ni maître euh, kii sant kan maître ma soxna kan bi mu wax si mbirum est-ce que maanaam non franchement parce que xam nga lii bu nekkoon si football la mun leen wax ne match à rejouer la ndaxte bu leen fàttali ne waxtaanoon nañ si si Ziguinchor si juge Saba si fay daanaka liñ doon waxtaanee rek moom la waxtaanee waat wax nga ko demaat nañ cour suprême wax naa mais cour suprême foofu waxtu bi dafa gënoon néew parce que avocat bu nekk li la mayoon si ay simili bëriwul or fii nii partie bu nekk am na quatre heures de temps ñu war ay aylo pour mën a mën a wax mais dans booy xool lan doon waxtaanee rek moom la ñu waxtaanee waat ndax Ousmane Sonko ba léegi mi ngi de contumace waaw wala déet Ousmane Sonko ndax jot na notification wala signification waaw wala déet ndax Ousmane Sonko app bi mu waroon am mooy juróomi fan gannaaw bi mu jotee notification bu nekkee jot na ko pour mun koo clamer ndax respecté na ko wala respecté ko loolu noonu si doon wax en fait rek moom moo doon gën a ñëw avocat yi lay si lu bëree bëree bëri bëri mais à part ça amul dara lu bees par rapport ak dossier bi ak li si doon wax mais lii yi nga xam ne waroon na ko def parce que boo leen fàttali ko juge Sabassy Faye dafa ne woon ne lépp lu ñu war def si ab koo xam ne dafa nekk en état de contumace mooy modalité de publicité mooy maanaam mbir mi nga am taf de la si benn journal de la euh, de publicité yi war ne wax li bees mooy l' agent du chef de l' indi na ay éléments yi war a ne que maanaam ponk yi ñu pour mën a publicité état de contenance Ousmane Sonko euh, respecté nañ ko loolu daal moom moo bees te loolu tamit avocat Ousmane Sonko am nañ si ay contestation yoo xam ne ni aussi def nañ ko si parce que foofu noonu sax le maître Babacar Niang doon waxee ne l' du Sénégal dafay produire du faux dafay agir comme bandit parce que justificatif yoo xam ne nii gannaaw mbir mi la nga koo daal maanaam mais loolu kàddu Babacar Niang mais euh, manifestement waaw bi moo gën a néew ay nit que yeneen yi li waral lool lu simple la mooy saal yi bokkul saal 4 la lan doon faral di par exemple Ousmane Sonko bi ngay àttee si Ousmane euh, Adji Sarr bi saal 4 la woon dafa sondeel mais bii saal 6 5 la wala 7 7 la ba kon boobu moom moo gën a ndaw beneen kon mais fees na dell ba ay nit sax taxaw si am na sax ñeneen ñu nekkoon si biti aussi di xaar donc li mën a wax tam mooy autorité politique yi am nañu fi nekk soxna Aminata Touré euh, mi ngi fa commencé a bi wala ba lépp gis naa leen aussi si biir salle bi nga ñëw fekkee ko. alors man euh, sama question moo a après bu ñu jógee foofu si lañ dem salle cinq li ko waral nag man amul explication bu leer li ñu firndeel moom mooy le président du tribunal d'instance de Dakar moom mooy le juge Thion bi nga xam ne nii moom mooy aate moom salle boobu ay aate ndax maître bi muy wax fekk mu si biir mais en fait daal de compte maanaam sax waxtaan nañ si lu bëree bëri article yu bëri indi nañ ko si ak ay plaidoiries yu gudd gudd ko si pour wax ne avocat Ousmane Sonko fi ñuy taxaw dafa simple mooy maanaam dañuy wax ne mais Bamba Cissé sax ñëwaat na si bu baax a dañuy wax ne kii ñu daanoon ñaari at yoo xam ne ko retraité si wàllum tos si ñoom Adji Sarr mënul wute kii nga xam ne nii moom lañ jàpp lu di ko toog di appel à l' boo xam ne am na si beneen aussi moom mooy leen bind si PV bi que moom leen si bind nag arrêté nañ ko loolu benn avocat Ousmane Sonko wax na ko pour firndeel ne ko jàpp nañ ko kon war nañu mën a génn si li nga xam te ne moom ko waaye nga ko jàpp jotewul dara ko wax moom a benn loolu débat la léegi nan la di gisee amaana fii ak waxtu yi di ñëw